kon ñun xam nañ liñ koy préparé xam nañ liñ koy yëpp te moom tamit xam na ne combat lu mu koy jaral. Mhm. kon jaru ñu koy wax ci ci ci ci ci ci micro yi. Mhm. dañ koy yebee rek. Mhm. xam ne xama xamal ne ko ne combat bu am importance ci carrière la. su si génnee mën na ko yóbbu fu bari daal. dëgg la waaw combat bi nan a laaj dina wala dina xeex. nu mu aajowoo rek xam nga ikir waalo moom boo amee ay yoo xamante ni wax yàlla dañ teg ci axe ñi nga séqal sa moromu mbër yéene la. ñu làmb la ñuy préparé. mooy mbër mu mag ak mbër mu ndaw ñoo yem lamb la ñuy préparé dóor ak xeex la ñuy indi lamb daal la ñuy indi nu gën a jege rek ñu def ko ci kàttanu yàlla muy bërëg taay boo xamante ne taay bu compliqué bërëg ci lamb ba loolu lépp tamit bokk na ci li mu xamante ne mu ngi gën a gàtt ñu ngi sunu sunu sunu écurie ah Macha nga ko jëlee exemple waaw Macha ay ay ay ay ay ay caat bu waalo ñu ngi fa xam nga ay ñu ngi fa te ñooñu dañoo oros dañoo am doole mën a bëri piir kon xam nga bu nee nga fa am na luur am na lese am na ku gàtt am na ndam te jeexaloon ndam yàlla na defal papa ja ndam xam nga ci barke Seydina Ahmad bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur santaat sunu sëriñ sëriñ Babacar si santaat sunu sëriñ maam Malick si mu sëñ Mansour di ko ñaanal yàlla fi yàgg te wér di sant waa yëmbal yëpp yëmbal yëpp maa leen di maa leen di gërëm yëmbal 1 ba 26 maa ngi gërëm ñëpp sama mbokku mbëri yëpp maa leen di gërëm waaw di gërëm tamit sama waa écurie sama waa écurie maa leen di gërëm baa ku sama xarit sama papa sama idole Alioune Seye numéro maa ngi koy gërëm bu baax a baax ndax ginnaaw yàlla ak yonante bi Alioune Seye buy buy buy buy buy nekk ba tey yàlla ak moom la bàyyi ma dara di sant waay Kër Waalo yëpp ñëpp maa leen di gërëm waaw combat bi combat bi jàppal nañ ma ci bu baax a baax waaw waalo du ma ma du ma bëril nag ñëpp maa leen di gërëm rawatina sama rakk booy Pire ak caat bu waalo ak ñoom dofu jaas ñoom ñëpp maa leen di bëggee di wax combat bi sonn nañ ci daal bu baax a baax di sant waa mafia bi mafia Talla Diop chaque fajar. cinq heures du matin waaw defal ndànk. combat bi sant sant moom waaw déedéet bàyyi ma même ma yegali rek mafia Talla bi. oo ma seen fay. guddi ak bëccëg ñu may yee. di ma yóbbu may entraîné ndax combat bii nii. grand Talla grand da général Almé waaw su ma waxee ñooñu. rek ay bi ak jamono bii lan ngay yëg. waaw soo gisee boo gisee lii xam ne man li may yëg mooy ndam rek laay yëg yëmbal yëpp a sama ginnaaw 100 pour cent yëpp ñëpp a ngi sama ginnaaw rawatina grand Jibril Diaw Alpha Sow monsieur le maire euh, euh, euh, Modou Mbène ministre Amadou Hott Omar Sow xam nga. ñooñu dañ may jàppale quoi xam nga côté combat bi daf leen jaral lu ne barke alxuraanu karim man su bu dee dafa am lenn lu may lu may bàyyi xel Tidiane Faye barke alxuraan ma bàyyi bëree. damaa mën a bëre pire waaw waaw dafa leer barke alxuraanu karim damaa mën a bëree pire. dégguma de dégguma Babacar nga ne. mais mais est-ce que xam nga ki nga war a bëril. ki may ma déggoo lu wax. man xoo ma moom moom man laa man foo mi dama ko mën torop barke alxuraan lamb moo waxul dëgg barke alxuraanu karim. billaay wallaay. ndax mooy loolu quoi xam ma man daal du ma ci mën a xam la kalaa ci wax. le 19 laa ciy wax ci kàttanu yàlla di ngeen gisaat benn Alioune Seye junior bu bees waxoon naa ci comment sama di ngeen gisaat beneen Alioune Seye junior bu bees sàq bu ni façon barka alxuraan daa am ñu nekk sama ginnaaw dafa am ñu nekk sama ginnaaw barka alxuraanu karim Aliou lan la gën a bëgg Tidiane Faye andil ko ko le 19 arène nationale ma ni la lu mu indi baax na en bëgg wala xeex lu mu indi baax na lu mu indi baax na man daal entraîné naa ci tous les plans entraîné naa ci tous les plans pare naa pare naa ci lépp. ngay bëre koo xamante ne moo la mag ci làmb muy Tidiane fay ñëpp ñi nga duppee ko li nga xam mooy professeur de Lamsar nangul ko mën a bëreem ngay bëre kooku tey xam nga engagement yi la ci fekk ci làmb ji ak bis bu rëy bi ngeen di bëree ci lu toll ki nga xamante ne mooy tafaatin booy ñaar xëy bis mënut a rëy sa kaw nag mais ki ngay bëreel mooy ndaanaanu bëri kat. ma ni bis du rëy man man ba ma nekkee xale laa dara bëri bis. takkusaan bu ne am naa ko mbapat fii man donc ma maa fi dem bëree barka alxuraan digga 2000 la bis jaaxaluma dama naan lamb lamb moo waxul dëgg rek mais ci kàttanu yàlla le 19 wane woon naa sama bopp si laa gën a woowaat sama bopp barka alxuraan waaw loolu bu fa duggaatee. waaw ko wax mu ne duggoon ko fa sa diggante ak Félix est yaa ngi sóor loolu tamit revanche. ma ne la foofu wet googu dama ko miin dama miin wet googu. ah waaw damaa miin wet googu. Alioune Seye dégguma la de nga ne lan. damaa miin wet googu. alhamdulilah. leer laa la wax. waa tere bën bën ko yëngal de. ma ni wet googu dama koo miin Alioune lamba waxul dëgg. dafa am ñu ni. waaw Alioune dafa jël risque. waaw risque jël mooy que lu fekk. Euh, Tidiane Tidiane Faye jël ko. lu tax loolu risque boobu nga jël pour lan. jël risque. damaa yàgg jël ba may daan bébé Modou Lo kenn gëmu ba may daan euh, ba may daan Brise Mer kenn gëmu ma. daan mbay Diouf mbay Diouf bëri na ak euh, Eumeu Sène. bëri na ak euh, Balla Gaye yaa may dégg bëreeg ñoom Baye ma Ndione dama bëreeg moom daan ko. Cheikh Niang bëre naag Modou Lo mas la moom dafa ñëw daan ko si si si yaa may dégg bëriwaat ak fii ay ay Tapha Mbeur boo may bëri ma ñëpp dañ dama jël risque man dama yàgg jël risque bu doon risque rek mooy man kon man dem yoon bu yàgg mais maanaam xam man man lu may bëre samay supporter lépp bëgg rek man maa seen ginnaaw. dafa am lu Babacar wax léegi léegi mooy lu am solo may leen ñu tuuti may leen ñu may leen ñu may leen ñëw dafa am lu Babacar wax léegi mooy lu am solo ci côté Tidiane fay ci côté qualité. ci côté li nga xamante ne mooy xeex moom lañ ci seen ndaama loo xamante ne nii day dugg sa garde daal lay dóor moom Tidiane Faye est que yaa ngi sóor ci li nga xamante ne mooy xeex bi ci côté li nga xamante ne mooy bëri xëy na ba lañ jaxasooyee doole ndaw feeñ ma ni côté xeex ikiri waalo bu soo gis di nga leen dànd mais kenn du leen duma ñun di ñu dàndee mais kenn ñu duma ikiri waalo la nekk ci ginnaaw ñoom Silba ñoom Arona Sall xam nga ñoom grand liiru jaan xam nga ñun ñun ci ñun ci ginnaaw ñooñu leen la nekk ñun kenn mësuñu duma daan ñu ñun bare nañ lépp suñu dee bëree fekk ko fi su dee xeex fekk ko fi suñu dee leneen lu dul xeex fekk ko fi man pare naa pour lépp su ma dem su may dem gerte mu yóbbaa sama arme yëpp du ma fàtte dara waaw. loolu loo wax Ardo mën naa andi microcrobe bu bëri ak coton ak alcool. Ah. yàlla dimbali na ma mus 18 euh, combats laa bëree. benn yoon laa mu a faju ji muy sama kaw ak bi de sa mère mais dama ko dama ko yóbbu Ardo ñeenti yoon. benn yoon laa mos a dem faju ji te 18 combats laa 18 combats laa bëre. waaw. lan ngay wax li nga xamante ne mooy mbokki làmb si côté violence bi xamante ne mu am si làmb mu nekk lu ñu ñaawlu lool. Alioune nga xamante ne mooy say supporters ak say fan si club ci côté li nga xamante tey nag boo xoolee Pape Thialis waa Leewtoo production tëgg nañ journée bu am solo la solo lool gis nañ jamono ji passé mooy xew ci diggante combat Papa Sow Siteu mbaa loolu lépp bokk na ci li nga xamante ne yéen a koy sóor ci li nga xamante mooy làmb ji ma ni ñun yëmbal lan dëkk mosuñu mosuñu ñu dégg ci violence mosuñu ñu ñu dégg ci violence yaa may dégg ñun xamuñu violence ñun yëmbal fii lan dëkk ñun geste bu neex lan xam barke alxuraan yëmbal nag lan dëkk ragal ragaluñu guddi guddi yëmbal ñun xam ñun geste bu neex rek lan xam sama supporter su daanee dañuy ñëw ci fair play bu ñu daanee ñu dem ci seen maanaam ci fair play ñun kenn kenn xamuñu si maanaam ci yàqate waaw jàmm la ni indi. solo gaz bu gaaw yi génn temps yi damm sees di sànni. rafetul lu ñaaw la mais nag xam nga làmb moom euh, nit ki dina toll foo xam ne suy def lu muy def sax du ko tey mais gars yu koy def ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñaanal seen mbër bu e combat yàlla suñ ma defal ko ndam ñu bàyyi saisi ndax ñun amuñu leen lu dul arène nationale président da cee da cee investir ñun ñu ne wax arène lañ bëgg arène lañ bëgg nañu bàyyi suñu arène boobu ndax ñun si la ñuy suturloo xam nga waaw xam xam rek man fan ma ñëwal hommage à père Double Less bi lan moo tax nga def choix boobu noonu. ci waaw Double Less euh, sunu père la sunu papa la papa jur sonnoon ci euh, ci làmb am na droit saison di ubbi saison di ubbi yàlla def fekk ko fi ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla yërëm xaari ko àjjana waaw di ko di ñaanal fépp fu mu tëdd fu ne yàlla na ko yàlla suñu borom defal euh, jàmm. taw féexal ko ci barke yonente bi ay yaxam sedd ci barke yonente bi waaw. beneen bi mhm. dafa fu mu nekkoon. à un moment donné mu wàcc Tidiane fay may ko chance ndax ci Tafa Mbër nga jóge tey Alioune Seye Junior combat bi lan la ko jaral ndax ñu bari nee nañ Tidiane Faye moo la dàq bëre te yéen yi ñaar yéen a taye daw ndax dem na ñu tuddee ko le professeur de Lansar nekk ci benn télé bu mag nekk bañ jël ko consultant est-ce que tey yow xam nga tey dayo combat bi. ma ni Tidiane Faye képp ku waxul du ndaanaan maanaam da ngay wax lu la neex la ndaanaan ku lu laa tasanteel yaa mais man damaa juddoo ci ay ndaanaan ndaanaan jaaxalu ma ndaanaan jaaxalu ma te nee naa la le 19 le 19 euh, décembre si la ñuy gën a xamaat xamoon noonu Alioune Seye junior mais si la ñuy gën a xam Alioune junior nee naa la wet googu dama ko miin. lan la gis lu bees. lu bees mooy daal euh, kon ko ñun kon ñun euh, ñun yëmbal lan dëkk ñun dañuy wax yëmbal bu bees ànd ànd ceeg ministre Amadou ànd seeg suñu grand Jibi Modou Mbène xam nga grand Alpha Sow xam nga grand Moussa gisee waaw di ci ma ànd ceeg gars yu bëree bëree bëree bëree bëri ay grand yu nekk su suñu ginnaaw yombul bees sax la ñu gis le 19 euh, maanaam le 19 décembre waaw gis nañ ci ambiance nga def lu doy waar léegi ndax mm-hmm. mën nañoo xaar ambiance bu garaaw le 19 tamit chorégraphie bu bees tàq waaw ndax ñun bu ñuy ñëw moom ci làmb dañuy dañuy la lépp chorégraphie waaw di leen indi di leen ñëw indi carrément ku ñu gis xam ne carrément kii ndam la indi ndax ñun moom saa su ne ñun dañuy gëm li ñu doon ba keroog ñuy gis leneen te si kàttanu yàlla combat bii nii si day si day raw. wooteel say mbokk say waaw. ñi may woo ñi may woo ñi may woo maanaam ñi may jàppal si combat bi ku ci mel ni grand Masata. Masata Masata Masata Magu Aziz Ndiaye may jàppale bu baax a baax taaliba sëñ Babacar boobu maa ngi ñaanal lépp mu bëgg yàlla na ko defal ah. di woo waa Tiwaawan sama sama dëkk. waa Kër Mbir Ndaw waa Ñàpp bala xam nga waaw. woo waa Casamance woo ñëpp daal sama di woo waa Fouta sama mbokk yi waaw maa ngi leen woo bu baax a baax ci combat bi nii waaw sama grand yi waa Yunkung xam nga waaw waa Yunkung dañuy sonn ci man barke alxuraan léegi-léegi xaalis bëri ma jox barke alxuraan te combat bi nii maanaam ñi mu jaral dafa bëri mais nag combat bi nii man la maanaam man la gën a jaral. yaa ko maa ko jël maa ko jëlaat ci ci yaan fayee avance am jox nañ ko ku ne. avance na dem taxawaalu man maa ci mujjee jot. su ma demee bay am lu may ragal ci làmb barke alxuraan bàyyi bëree yëmbal moo nekk sama ginnaaw barke alxuraan te damaa mën bëree. le vingt le dix neuf ngeen xam ne Aliou Sédhiou am dafa mën a bëre dafa am sañ-sañ barke alxuraan. góor du yërëm góor. a lu ma la wax man daal maa ngi woo ñëpp le dix neuf décembre. di si woo grand jibi grand jibi kaar ñun dañoo war a mobiliser grand jibi kaar yi. Alpha Tissette yi ñëw na mais nag jeex na tàkk yaa may dégg ñu ngi xaar ministre Amadou Hott ministre ministre Amadou Hott ñu ngi koy xaar ci combat bi pour ci ay billets ak grand Modou Mbène Alpha Sow xam nga di woo Seydou Diallo. Seydi Diallo maa ngi koy woo moom si combat bi bu baax a baax a baax a baax waaw di woo di woo grand Talla ak grand Da mafia bi. bandirabe di woo di woo waa Gunaas Géejawaay maa ngi leen di woo sama gars yi ñoom dundu dundu mafia bi xam nga grand Moussa Guissé maa ngi woo ñëpp di. dimanche 19 décembre arène nationale gala de lutte bu mag ñu ànd ci ak Leewtoo production